jami nguur geeg jami diine ji borom min sidi maxnaa bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi tayibin attahirin assalaamu aleykum yéen mbokk yi seetaan Mourchid TV la chaîne des valeurs ñu ngi am mbégte di delluse di daje ak yéen ci bés bu tedd bi ngir waxtaane ku tedd dañu bëggoon dugaat ci dund ku tedd koo xam ne jaar na fi ci ay jamono réew mi xam na ko continent bi xam na ko àdduna si xam ko mooy sanga bu tedd boobu du Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñu bëggoon dugg ci ay jàngaleem yi nga xam ne jëriñ na ñëpp jëriñ na mag jëriñ ndaw jëriñ góor jëriñ jigéen jëriñ ku weex jëriñ ku ñuul waaye ñu bëggoon gën a tënk waxtaan wi ci ay waxam yi nga xam ne daf ko wax pour mu nekk yóbbal pour mu nekk dund boo xam ne ndaw ñi bu ñu ko jëlee mën na leen wan fu ñuy teg tànk mën na leen gunge ci seen dund ñu ne woon nañ waxtaane les enseignements de Serigne Babacar Sy un viatique pour la jeunesse xam nañ ne ñu màgg ñi seeni jëmm bu demee itam seeni jeexital dafay des mu nekkoon koo xam ne jamono seede na ñi am xel yu leer ñi am xol yu sell sedd nañ ne bokkoon na ci ñi yàlla joxoon xikma yàlla joxoon ko ngëneel yàlla joxoon ko ay leer ci 1957 la fàddu woon booba ak léegi am na juróom fukki at ak juróom-ñaar ñu ni woon tey nañu nafaraat lenn ci jàngale sang bu tedd boobule muy Serigne Babacar Sy ci noonu ñu dalaloon fi ñaari mbokk war a seq ak moom jotaay bi muy suñu mbokk Mouhamed Hafiz Wele Mouhamed ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak ñi nuy seetaan alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wasalaatu wasalaamu ala almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa ashaabihi wa xulafaihi Euh, di nuyu yéen ñi ma seqal plateau bi dalal ma ya oustaz euh, di leen béggee te rafetlu seen liggéey di nuyu itamit ak di ndokkeel képp koo xam ni yaa ngi suivre Mourchid TV di rafetlu seen liggéey di ñaan yàlla na yàlla jëmale télé bi ca kanam bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bi Mourchid ñëwee ak léegi ñun gis nañ ci sunu bopp wax dëgg yàlla ndax jamono am na lu fi tumranke woon ngeen indil nu ko kon alhamdulilah la ñuy wax sant yàlla dellu ko ci rek la in shakartum la azidannakum moom la ñu ñaanal télé bi yan yàlla yàlla ko yàlla def muy nekk télé boo xam ni dana dem ba wër àdduna. jërëjëf mooy Seydina Mohamed. jërëjëf oustaz Wele kon euh, mbokk beneen bi ñu seqal plateau bi mooy suñu mbokk al oustaz Mouhamadil Amine Diop oustaz ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi nuy seetaan. bismillahi rahmaani rahim. allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñoo ngi leen di nuyu eh, sëñ Adama yow mi nga xamee ni yow yaay jiite jataay bi di nuyu sunu mbokk Mouhamadul Hafiz Wele di ko ziyaar di nuyu mbokk téléspectateur yëpp di leen ziyaara di leen masaw coono ci di bég lool ci teewaay biñ fi teew def sunu tarbiya ci waxtaane ci kenn ku tedd koo xamee ni àdduna yëpp xam nañ ko rawetuna Afrique rawetuna biir senegal muy Cheikhul Khalifa Aboubacar Sy kon ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bi di leen ziar. Euh, jërëjëf oustaz Lamine ci noonu lañuy ñuy duggee ci waxtaan wi ñu wax ni kon dañu fi daje ngir nafar jàngale sàng bu tedd boobu dañu wax ni dund yàggul waaye nag dafa mel ni lu muy gàtt gàtt. yoon wi ci nit di jaar jëm fa mu jëm yoon wi mën na gudd guddaayu yoon wi itam bokk na ci li muy tekki mooy la fa nekk ci ay gàllankoor ak la fa nekk ci ay pakk dafa bari mu dellu ca la woykat ba waxoon ni tariqi tawilun wa zaadi qalilun wa ximli thaqilun fa kayfa ixtiyaali nee na sama yoon gudd na te li ma yor ci yóbbal bariwul te nee na sama yéen diis na kon nan lay def ba àgg mu mel ni ci nan lay def ba àgg noonu mooy tax nit di soxla référence royuwaay delluwaay nga niitu ci ay jàngaleem pour xam fooy teg sa tànk pour xam nooy tooge waaye balaa ñu ñëw ñëw ci jàngale Serigne Babacar Sy dañuy ñëw ci Serigne Babacar Sy ci boppam ñu laaj mooy kan ndax liy feeñal solo jàngale bi li koy jox tolluwaayam mooy ñu xam ci wax wax ji ak ki jàngale jàngale bi kon laaj bu njëkk bi si Lamine laa koy laaj moo di boo ñu doon tënkal ci gàttal kan mooy Serigne Babacar si ak bi muy ñëw ci suñu àdduna bi ci suuf booba mbir yi nan la tëdde woon maanaam ci ban contexte la la ñëwee ak moom mooy kan ci gàttal euh, waxtaan ci ku mag dana jafe ci ku tuuti doyadi te ñàkk xam-xam waaye nag ma majaal bi moo nuy may maanaam occasion bi moo nuy may lu nu doyadi doyadi tam barkeem ak taxawaayam ak sunu cofeel ci moom ñu nab na bi kemtalaayu li ñu mën a waxtaan ci moom bi njëkk mooy waxtaan ci nit dafa laaj ay mbir benn mooy nga am lu ñuy tudde ay bu fekkee ne fekk woon dundam nga am lu ñuy tuddee ay source source yi mën na nekk source boo xam ne moom moo ko bind te loolu bari na ndax sëriñ Babacar si bari na lu mu bind te ba léegi mi ngi fi ñaareel bi mooy nga déglu walla keneen bind ci moom nga xam ne loolu tam source la ñetteel bi mooy nga gis ne ñu dundoo nag moom te fekkee ko te jege ko lañ la wax ci moom nga xam ne kat loolu mooy beneen source kon am na lu ñuy tuddee source écrite am na lu ñuy tuddee source orale ñaar yëpp nag yàlla baaxee na am na ñu doon dund ak moom parce que 1957 matagul juróom benn fukki at am na ñu doon dund ak moom wax ñu ci ay dundam bi ci njëkk mën naa wax bari na sunu maam Cheikh Ahmada Tidiane si yàlla ko fi yàlla bàyyi yàlla yokk ko wér yàlla yokk ko gën a gudd fan bari na lu mu wax ci jataay wax ci Seydi Cheikh Ahmada ci Serigne babakar si lu mel ni tam Cheikh Ba Malick si lu mel ni tam sëñ Abdou yooyu mën nga wax ni c'est des sources orales des fois nag moo am ay sources écrites yu bind ci Serigne Babacar si mel ni Seydi Cheikh Ahmada Tidiane bari bind ci Serigne Babacar ñeneen noonu lu mel ni Cheikh bay di mu def ci moom ak ñeneen ak ñeneen yoo xamee ni kon dañ doon wane kan moo doon Serigne Babacar Sy am na góor ñoo xamee ni bokkuñ ci biir kër gi wala ci biir kër gi la ñu bokk waaye di ay njabootam nga def entretien ak ñoom ñu wax ne ne kat fekke naa Serigne Babacar Sy bi sàngam mu wax nangam kon dangay xam ne yooyu booy wax ci nit tam bu fekkee ne danga ko jël d'une manière nga def ko étude scientifique ci loolu nga ko mën a jaari Serigne Babacar Sy mën nañu wax ne mooy. ñaareelu doom bu góor bu Cheikh Al Hadj si mu ngi juddu mi ngi gane àdduna bu ma mën a wax Serigne Cheikh nee na luy juddu nag juddu du dara waaye mi ngi gane àdduna en 1885 mu ganee ko Saint-Louis ci rue André Lebon ndax loolu loolu moo ko waxal boppam inni kuntu min ahli ndari wa maskanir ladaari André loolu moo ko wax boppam mi ngi juddoo mi ngi gane àdduna à Saint-Louis mu ci jamono boo xamee ni 1885 1886 xam ngeen ne 1886 ci la ñu rey ci la ñu boom Lat Joor ca déqale kon donc nga xam ne kon booba ci bi muy gane àdduna tubaab bi mi ngi doon am mémise ci biir réew mi loolu lu jar a bàyyi xel la bi mu ganee àdduna nag mu am mu gane ko tam réew mu am civilisation xam ngeen ni saint am na trois trois cents ans ñetti téeméeri at ci colonisation boo xamee ni tubaab yaa nga fa ñetti téeméeri booba ak léegi mu judd nag ci diggante boo xamee ni maanaam tubaab yi wolof yi li ñuy tuddee tam influence euh, euh, naar yi boroom xam-xam yi ñëpp kilifa goo mën a gis fii ci Sénégal wala ci sous-région bi rek muy kilifa diine gu mag jaar na Saint-Louis Saint-Louis Saint-Louis moo doon la capitale de la l'AOF kon mën nañu wax ne civilisation ak xay fa la fa la fa la fa la baaxoo mu judd ci jaww xam-xam boobu màgg ci di njabootu Cheikh Al Hadj nee naa wax nag ne mooy ñetteelu doom ci itam ci Serigne Babacar parce que digganteem ak euh, Seydi Ahmed nee nañu am na ku jigéen ku ci topp. kon donc mën naa wax ci tàmbali ne loolu mooy fi muy gane àdduna moom nag boroom personnalité bu kenn mënta euh, laam-laamee la woon kon mën naa wax ne dama koy tënk parce que sunu mbokk xaafis moom ma ci gën a versé wu parce que bàyyam historien la te xam naa ci biir kër gi la bokk dana ma ci génne mais gëstu bi ma defoon ci mille deux mille dix maa ngi ko defee woon école normale tey ñoo ko wax FASTEF ñu ngi ko bindoon ci Serigne Babacar Sy ak ay vision ci wàllu éducation mais personnalité am Seydi Cheikh moo nu ko jàngal en 1986 ak Guéréo mooy fi may wax ne foofu rek laay mën a tënk nag ne kalimaatuhu xutuwaatuhu laxadaatuhu adaxat muqaddaratan wala tazila nee na Serigne Babacar li gën a am solo moom ak bu ma ko mënee tënk mooy ne Serigne Babacar c'était un homme de mesure daraam daawul am mbellit maanaam daawul am luñ ci mën a gecc baatam ba doxinam ya xoolinam ya lépp da ko nekkoon ne homme de mesure boo xamee nii amul loo xamee ne am na mbicc mu ñu mën a sànni moo tax naar bi xool ko ba ci yàgg ne ni mu yoroo mu ne ñu ni laaj ko ni mu yaru ak ni mu teeye mu ne innahu yata addabu ma alxaq kon donc Serigne Babacar Sy dañu séq ay nit plateau bi donc kon il faut ñu bàyyi leen ñoom ñu wax ñu wax ci waaye c'est une personnalité multidimensionnelle koo xamee ni fa tabaarakallahu yàlla may na ko ciru li ñuy tuddee diine may ko ciru àdduna li tax ma wax loolu mooy Seydi Cheikh mooy wax ne ñii duñu sëriñ mais ay prince yu diine lañ loolu mooy tax ma mën a wax ne kon nom un homme bu dee li nit di jàng ci xam-xam ci réew mi jàng na ko taalif ci dinaa wax ni li mu bind yi ci ëpp ñaar la muy diggante wolof ak arab yi dinañ ci ñëw ma waxaat ne dafa jàng ba nekk interprète di li ne di maanaam di làppatoo loolu li mu doon teg tele mooy ne tam ne ni mu jàngi woon arabiya noonu la mëne woon li ñuy tuddee nasaraan parce que colonisation bi fi nekkoon franc colonisation française la yooyu xam-xam la boole ak xay goo xamee nii dinaay wax ne ni ciru yàlla bi toll noonu la xayu àdduna gi toll. jërëjëf oustaz Lamine xam naa balaa ñuy ramasser ñëw na ci yu am am solo ci nu ñu doon duggee ci waxtaan wi ngir xam ki ñu bëgg xuus ci ay jàngale mooy kan ñun ñëpp ñoo ko déggandoo indi na ci lu am solo dañuy jox sunu mbokk Mouhamed Hafiz Wele. Euh, mbokk mi mu ngi junju léegi ne woy juróom historien la maanaam nitu taarix la te mooy suñu woy jur bu baax ba Seydou Wele yal na yàlla dolli ko barki kon Mouhamed Hafiz boo amee looy dolli ci laaj boobu kan mooy Serigne Babacar ak jamono yi mu ganisee àdduna yëf yi nan la tëdde woon amin am na yu mu ci indi yu am solo bismillah waaw dafa mel na sëñ Lamine contexte bi wax na ko may dellu siwaat rek ci loo xam ne xëy na suñu góor gi moo ñu ko nettal di xaaj Seydou di wax ni pour nga xam Serigne Babacar si dangay jëm a xam ñeenti façon doom yi nga xam ni moom la jigéen di jur ndax dafa wax ni li doom yi bari bari bari ñeenti rek la ñu weesu wuñ ko euh, mu am lu ñuy wax doomu wàndal am lu ñuy wax doomu yaaxoo yu sën am lu ñuy wax doomu xeebi tàccu am lu ñuy wax doomu pull mu ni nag sëñ Babacar doomu pull la wàndal dafay doom joo xam ni dañ ni su màggee suñuy lim gor su baax si moom dooma sa dégg mukk ñu njëkk ko tudd dañ naan diw diw diw ak diw te ku sañoon sa doom bu ñuy lim gor su baax si ñu njëkk ko lim mu ni kooku na jigéen ba koy jur mooy jigéen bi nga xam ni dafa lewatal jëkkëram ci biir ba pare waxal ko ci biti ñaareelu doom bi di li ñuy wax doomu yaaxoo yu sën gis nga ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk ci àll ba booy seetlu su nawet jotee fi ñuy sànni mbalit mi ñu sën bi bu tawee taw bu njëkk ñaareel rek nga gis mu commencé sax ay ay ñax waaye ñax yooyu le su tawaatee yeneen taw ñaar ñett rek nga gis yooyu dañu daal di dee ya nga fa nga xam ni fa la ñuy bay gerte yeeg yooyu yooyu ñooy dundaat bii ci booru sën bi nag moom la tuddee yaaxoo yu sën man day am njëlbeen waaye mu ne nag jigéen dana sëy noo xam ne doom jooju lay am day am njëlbeen waaye doom mujj te te mooy doon contraire u bële maanaam kooku dafay waxel xat jëkkëram ci biti lewatal ko ci biir mooy jur doomu yaa yu sën day am début mais du am fin am du rafet mu am début doomu xebi tàccu xebi tàccu mu ni doom la joo xam ni comme yi xew ndakaaru ak dëkk yu ni mel nga xam ni day am ay puukare su xew-xew amee lu mel ni ngénte yeeg yu ni ne da nga gis benn ponkal moo xam ne toujours bu ñuy yebbi seen yooyu ñuy def kooku mooy yenu valise yi te ponkalum góor lay doon bala muy yenu dañ koy tàccu mu fecc bala muy yenni dañ bala muy yenneeku dañ koy tàccu mu fecc te su luñ ko tàccu tàccu nag lu mu xumb xumb xumbum mu ngay xool ñaari jigéen wala ñett ña tàccuwul su paree song leen leen yéen da ngeen a soxor doom ji ko ki koy jur nag jigéen ji jur kooku mooy ki nga xam ne dafay waxal jëkkëram xatt ci biir xal ko xatt ci bi ci du jariñ ñu ma ko ilaa yawmi bi nga xam ne moom la soxla nag mooy doomu pull mun lan mooy doomu pull doomu pull mooy doom joo xam ni su gor ñëpp daje woon benn fauteuil rek nekk fi walla benn chaise benn micro nekk fi ñëpp dañ naan na jël chaise bi moo ci toog walla fauteuil bi te kàddu gi gor ñëpp dañuy àndandoo d'accord ci nañ ko jox moom mu waxtaanee waxtaan wi te su ne dama ni ñëppay àndandoo déglu kum neex ak kum naqadi te su daanee lee ñëpp ci ànd d'accord ndax la muy wax dafay rafet mu ni kookoy sëñ Babacar Si radiyallahu kon dafay koo xam dañ koo préparé démb ndax li tax mooy al baladu tayyib yaxruju nabatuhu bi izni rabbi fa la dellu ndax ku ne xam nga soxna Roqe Ndiaye digganteem ak Seydi Hadj Malick ci jamono boobu Seydi xaj malik ni amul woon ci waxin amul woon alal te jamono boobu daan nañ joxe ñett téeméeri dërëmu ngurd ci kuy takk soxna Seydi Hadj mal amu ko waaye soxna Roqe ya ñu wax ni ay mbokkam sonal nañ ko ci sa njoolum Fuuta mi amul dara mu koy jooy rek di ko jooy waaye di ko nëbb Seydi Hadj Malick ba bi Seydi Hadj Malick ñoo fekk ko mu jooy ba kanam gi xaw a sadd mun ko lii lan la sonal ko ci ba mu ni ko ah sama mbokk yi dama sonal rek mun ko ndax ñetti téeméer yi mun ko waaw seen xaj Malick génn ba tàkkusaan di xanaa tàkkusaan suuf mu ñëw indaale ñetti saaku yu def yu def xaalis boobu dafay sakkan mu ñëw ni ko lii la ñuy sonal sa yëfa ngoog soxna Roqay ni ko ndax maa ko moom mun ko waa yaa ko moom mu ni ko ndax lu ma neex ma def ci mun ko lu neex nga def ci mu ko tàllal sa loxo mu tàllal mu ni ko gis nga bii maa ko dëggale sama jaayante ak yow ci yàlla beneen mbuus bi mu ni ko mu koy def dagaan sama diggante ak yow yàlla na ma yàlla may ku mel na yow wala ku la gën ma teg sama bët ñetteel bi mu ni ko kii maa ko jaayante ak sama borom ngir man ak ñu mu am ak yow ak képp ku la yaakaar yàlla nay doon seen njot ci safara ëllëg seen xaaj Malick jël loolu jënde ko lépp ay téere ñëw ni ko roqee mu ni ko labbayk mu ni ko gis nga lii mu ni ko waaw mu ni ko dina am ak yow ku xam lii ak leneen lu dul lii te danaa génn àdduna bàyyi la fi ak ma ba nga xam sa liggéey lan la moo tax ba mu jugee ci waxin ba mu jugee gaaya seeti woon yaa euh, maam Alpha yi ma yoro fekk na boobu Seydi Ahmed juddu na fekk na aussi booba gane na àdduna itamit euh, soxna Farsi gane na àdduna muy dellu si ñëw ba ndomb àllarba fa la toogoon am yu mu doon topp ci genn góor dem na dellu siwaat lañu wax waaye ca ba muy taalif tey siir ba lañu wax ni bu guddi gëm àggee ca lañ ko indi télégramme bi si ñu ne ko soxna Roqaya am na doom ju góor fekk na lu jiitu loolu mu dugg la mu dugg woon xel wa euh, góor euh, tafsir amadu baru Njëgën ñoom ma Malick saar doon xool ci digganteem ak soxna si keroog bi yëf yi amee bi ñu ko nee loolu am na mu dem di ngénte ji moom ca ngénte jës bañ ba ñu tuddee la ko tafsir Amadou Bari Njëgoon ni ko yow de dafa am xel ñu dugguloo woon sa digganteeg soxna si ñu gisoon ci doom ju góor ju siiw ju tudd Babacar ndax Babacar mii la mu ne ah am Babacar daal la ngoog bu ëllëgee ngeen xam. kon bu wax ni sëñ Babacar dañ ko préparé. waajal ba nag ndeyam daf cay lu am solo. ndax tey entreprise boo créé bu mu mën a doon yow mi ko créé loo bari bari moyen te ñi nga nekkal amuñu pas-pas amuñu motivation pour mu dox dana jafe misaal bi la joxe sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu kon nekk góor goo xam ne dañ ko préparé ci leer préparé ko ci lépp wàllu njàngam ku ne xam nga wala boog dégg nañu nettali nañu la ca Seydi Hadji Malick daj ba wax nañ sax ni bi nga xam ne mi ngi am ay juróomi at juróom benn at ay ay kilifa seet si nañ seen xaji Malik radiyallahu taala anhu ñëw euh, kilifa yooyu suñ Babacar a ci si jaada bi mi ngi jaabante di dem ak a ñëw yenn saa mu jël kur seen xaji Malik seen xaji Malik génn rek kilifa yooyu daal ko eh bi toogal laa wax ak li ngay sob seen xaji Malik bi mu dugg seet daf leen yéen ñëpp toog leen xale bi yeesal leen pour wax ni cëram daf ko am démb te dara xewagul maanaam cër day mag borom. kookoy seen kookoy Si. macha allah est que ah ñoo ko déggandoo ñoom ñaar ñëpp indi li ñu lu am solo mais fii Mouhamed Hafiz daanelee foofu lay tàmbalee ndax dafa wax ni dañ ko waajal démb ah ku ñu waajal démb nag dafa fekk dañ la war a yónni ci aw nit. dafa fekk dañ la war a yenn mission. Mm-hmm. waaye mission tam ci barab lañ koy indi. ci aw nit lañ koy indi loolu tam mooy importance su wax bi fi nga xam ne Amine dugg na fu pour jox ñu contexte maanaam barab bi nga xam ne fa si àdduna ak yëf yi nan la tëddee woon ca jamono yooyu ndax tam euh, nitu yàlla wala ab yonent ci aw nit lañ koy yónni ci barab lañ koy yónni te faw mu maîtriser nit ñooñu faw mu maîtriser barab yooyu kon mbokk yi defe naa ne dugg boobu ñun ñëpp ñoo ko déggandoo am na solo ñu ngi ci jaajëfal mbokk yi bu baax a baax euh, laaj bi ñu bëggoon ñëw mooy dañ wax sànq ni dund bu gàttee itam yoonam gudd na dañ bëgg nag gën a joyal waxtaan wi jëm ci njàngalem sëñ Babacar bi nga xam ne bana ko fi te ndaw yi war ko mun a yóppaloo war ko mun a jëriñoo su dee ñëpp soxla ku leen gàgganti su dee ñëpp soxla ku leen joxoñ ndaw moo ko war a gën a soxla ndax ndaw la mu ngi nekk ni ndaw xëy na ñoram des na xëy na gàllankoor yi taxaw ci kanamam bare na mu laaj ku ko yar mu laaj mu war a am xam-xam mu ngi ci jamono boo xam ne mu ngi nekk ndaw di màgg jëm ci war a mët góor ngir yenu ay responsabilité parce responsabilité yenu ko rek la ñuy doyee doomu aadama Seyd Cheikh wax ni abi wa abi malil kirami adiluhu kama darasat minhu l futuwata fityaanu kon laaj bi ñëw Sidi Amin mooy Seyd Cheikh dafa wax ci bayt bi ne ndaw ñi ci sëriñ Babacar Sy la jànge nan lañuy ñuy def ba mot góor mën a yenu responsabilité bi mu leen di jàngal ak yi mu leen jàngal formation bi ci nan la feeñe ndax ci ay wax ndax ci ay jëf xam nga mhm. yarkat boo gis dafa am ay dimension yu mu yare mhm. Serigne Babacar Sy yar na ci wàllu jikko yar na ci wàllu jikko mhm. yar na ci wàllu ruux yar na ci wàllu pénc yar ci wàllu jukko ji mi ngi ko tàmbalee ci ni ma wax sànq ci melokaan bu mhm. ko gis rek di nga ko tëy di nga ko respecté ci doxinam ci waxinam ci jëfinam yaru na ci wàllu jàngale ak dénkaane mhm. damay tënk mhm. ndax nee nañu daan na takk rajo juróom-ñaari at di wax ak nit ñi buy wax ak nit ñi itam du wax arab du wax tubaab wala bi ñu dégg ñoom moom la leen di wax loolu mooy maanaam capacité d'adaptation bi Serigne Babacar Sy amoon loolu lay jàngale maanaam séq ak péncu wolof nga mën arab lool ba raw fi ci arab jàng tubaab lool daq ci bind mën koo wax lool waaye nag nga def capacité d'adaptation nga mën a wax sa pénc ci li ñu nàmp ndax wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi lisaani qawmi est buy wax góor di ci mën jël jigéen di ci mën jël loolu nag dañuy delluwaat ci personnalité Serigne Baba xam nga Serigne Babacar Sy dafa Maodo daf jóge mu donn ko te amul 40 ans mm-hmm. loolu tam facteur la bu ñu war a souligner mm-hmm. te sunu penc li ñu xam mu ne mag mooy doon mag te entourage yu sëriñ Babacar Sy nekkoon ay ngënk ay ponkal yu nekkoon ak Cheikh Al Hadj Malick entourage yu Cheikh Al Hadj Malick mm-hmm. Serigne war a ñëw war a taxaw kon dinay wax ne bokk na ci li mu jàngal nit ñi mooy ne ful la jëmu am ba li Serigne Baba Cheikh Al defoon mu géré ko ginnaaw ba yàqu mm-hmm. loolu jàngale ci ne loola sa wayjur bàyyee dañ ko war a def sa sa sa bakkan pour loolu mu nga samp ko mu gën a taxaw moom laan wax ne samp Serigne Babacar Sy du ma Cheikh Al Hadj Malick du ko yëngal duma ko laal sa waxtu ma di ko jéem a yëngal kon da ko doon jéem a dëgëral léegi nag ñu dem ci nu mu doon yare xam nga ki takk ki bind ki bind bàyyi kooku yar na ci ñi jàng waaye ñi dégg wolof te nàmp ko te daan ko fekk si ci góor ak ci jigéen dem na ba nit ñi sax daawuñu jàng waaye waxi Serigne Babacar Sy moo doon nekkoon seenum njàng. Mm-hmm. moo tax ma xam ni kon yare na ci yar na ndaw yi ci ay kàddu. ay kàddu kàddu yooyu nag mënees na ci ñëw mooy daan na jekke ba ci yàgg comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. comme comme ni nga ko waxee mu ne mu ne sansu ndaw. Mm-hmm. mi ngi ci mu am moom mu am mu ami teggin. dégg wax bi. chance ndaw mi ngi ci mu am yi teggin xam nga kooku mi ngi yar ndaw. mi ngi koy am loo jom ne loo am am am ak loo xam-xam-xam bu fekkee ni euh, teggin nekku fa rek du jàll. kon mën nañu wax ne kon li ngay wax sànq ne kama darasat minhul futuwa te fityaanu mhm. mooy ne mënoo am futuwa te sa discipline des. maanaam ci ci ci élément yi yi nga xam ne farata la. farata la pour nu futu woon maanaam nguura. Mhm. bravoure ak taxawaay mën a am ci góor. Mhm. moo waxee góor na baal ma waxuma ko. jigéen waxuma ko sexe. ci xeet waxuma ko ci ci sexe wax dama ko wax ci. taxawaay taxawaay ak mët ak mët. Mhm. jazakumullah na ci yar ci la nit ki mën a amee ay bëgg-bëggam. mu waxaat loolu. nee na nit mënul am bëgg-bëggam yi mu fi mu jëm bu fekkee ne àndul ak ay ak yar muy ñaareelu li mu waxaat ci ndaw yi ñu pour ñu jàngal futuwu mu wax ne wax wolof lay wax nag loola loola mar mayul loola mar mayul màtt du la ko may est-ce ndànku mayul ba nga jot ko nee na hmm. boo màttee tam doo ko jot kon loolu tam dana wane ne ndaw ñi tam du ñu mooy li nga wax sànq du ñu teel a découragé mooy ngay dox ba atteindre say objectif ta xat du damm kaas du toj mu ni mooy la mar mayul mar mar xam ngeen mar mm-hmm, mm-hmm. maanaam nga mar dara mm-hmm. nee na loola mar ak sa làmmiñ nee na jëfandikoo sa làmmiñ ci mar yenn saay mu may la loo xamee ne boo màttee du la ko may màtt nag bëñ lañ koy def mel nañ itam nga lu la Mhm. mel nañ loolu aussi dugg na ci baat bi nga wax sànq. Euh, mhm. ci ci sens de mesure. sens de mesure maanaam moom la bëgg a jàngal ndaw yi foofu. Mhm. xam nga mbokk mi dafa wax léegi Mahamadul Hafiz ci mag ñi ñëwoon fekk sëriñ Babacar Sy ñëw di kii ñu ne waaw ndaw ndaw li doo doo doo yaru du noonu. kay mu ne ku gane ci daan na wax ak ndaw yi ne ku gane ci dafa war a am noo mën a mel. waaye waroo mel ni dëkk danga wax bi mhm. ci njàngale viatique boobu te xale yi war ko jël mu ne gan du jëfandikoo ci ndab nu mu ko neex mhm. loolu day wax ak ndaw ñi mhm. gan du jëfandikoo ci ndab nu mu ko neex mu indi nag tegtal yi ne gan du teggi gan du jëkkalaal ndawal gan du jëkk ubbi ndab teggi teggi teggi bi teggi ndawal maanaam du jëkk laal ndawal maanaam mhm. xam nga ñun rënd bi ñu daan teg ci bool bi mhm. mag ñi wër ko ndaw ñi wër ko mhm. gan ñëw rek daal di commencé ne daal di jëlee coppet ndawal mu ne gan day xaar ñu tegal ko ndawal waaye gan du jëkk laal ndawal loolu day wan ndaw ñi ne boo gane ji tam da war a am sens de mesure xam nga ndaw yàlla da ko nattoo bëgg a feeñ. bëgg feeñ. bëgg feeñ. bëgg fés. mu ne gan mu ne gan du jëkkante sàppe su jëkk loolu day wane itam nit ki war na am tam chance de mesure de telle sorte que bu ganajee na war a xam fi dëkk yi war a taxaw ci jàkk ak fa mu war a taxaw hmm. mu ne gan du tëj mbalaanu wasifa lii ngay gis ci jamono ñu ñëw rek toog ku bëgg a feeñ ñu mbasi fu teewar joxuñu la déggal nga ne ren lekk commencé ñaan mu ne gan lu tëj mbala am na eh, am na solo Sid Lamine <laughs> mais dafa am laaj bu mu bëggoon jokk ci foofu nga jeexale maanaam gan du eh, du du du jëkkante sàppi bu njëkk ak du tëj ñaanu wasifa xam nga dañuy seetlu ci mhm. jamono mhm. Euh, am ñoo xam ne dañuy am euh, dégg-dégg jàpp ni. Mhm. mbiru diine daal ñëpp ko moom. Mhm. ndax mbiri yàlla la mbiru yonent bi la ba mu ba mu mel ni. Mhm. dañuy bëgg sobantal. principe boobu nga wax mooy principe lu ci nekk. dafa war a am ku ko jiite. ak ñoo xam ne ci seen loxo la nekk. xam nga lislaam mel dina sax di indi ay coow. xam nga lislaam institution yi la teg. jàkk bokk ci institution lislaam dama ne assemblée bi sañoo ci dem rek ni man may présider l'assemblée. wala man ni je suis le secrétaire élu de l'assemblée déedéet boo ah. ñëwee dafa am yoon ak protocole bu ñu lay jaarale nit ki bu ñëwee ci institution boo xamee ne gan la fa te nu jiite ko am ñu fa nekk dafa war a tàggook ñoom ba dégg ak ñoom ba kenn ku nekk fan la teg nga war koo tegu dëgg bu dul loolu organisation l'islam du teguwaay Serigne Babacar Sy bëgg nu respecter organisation ak tërinu l'islam mhm. ak discipline l'islam moo tax mu ne gan moo tax mu jëta ne gan du yëwi ok loolu laa ci dégg. est-ce que est-ce que oustaz euh, nga ni oustaz Lamine waxe ci laaj boobu mu laajoon ñu laajoon moo di. njàngaleem Serigne Babacar moom nee na jàngale na ci mbind jàngale na ci wax. wax na tam ni wax bi. ay wolofal yu leer te jege. ñi mu doon waxal ci la ko doon waxee. Euh, mais est-ce que jàngaleem ci wax rek la ci façon bi muy jëfandikoo. Mhm. tam est-ce que amul luñ fa mën a kii. Mm-hmm. wala am na yoo xam ne war nga ko dolli ci jàngale ci wax ak mbind ak comportement am mm-hmm. alhamdulilah mm-hmm. euh, yàlla dafa def euh, suñu way jur dundandoog moom xaaj Seydou wax na ma ni ma ndax dama ko mës a laaj ma ni ko man dama gis nii yow sooy dox lu mën a xew sa gannaaw ak ku la moo mën a woodoo gestu mun ma ci sëñ Babacar laa ko roy mun ma ma yokkal la ci ni itamit àdduna ma su ma yéege man Seydou fu ma tiite ma ne ko lu tax mun ma ci sëñ Babacar laa ko doon wax na ma ni ma sëñ Babacar li gënul yéeme mooy ak xaal boo mën a ñëwe soo gisee mu toog rek yow noo def soppeeku mhm. daf lay daf lay conditionné daf lay conditionné dafa mel na force boo xam ne rek mhm. soo fa dugg see rek yow sa nature wala li nga àndaloon dafa mel na daf koy neutraliser. est que mel na rek euh, radaru américain yi wala yu demee noonu. Mm-hmm. nga xam ni fu ñu fekk arme sophistiquée bu war a détruire seen mbir rek dañ lay neutraliser sëñ Babacar loolu la ko yàlla defaloon ci wax. Mm-hmm. dafa mel ni yi nga jàngale nii dafa delluwaat ci yar rek. Mm-hmm. sàmba yow nettali ma te ku ñu wax Abdou Karim Guèye ca Waalo gaañu na yàlla ko yàlla yërëm. waxoon ma ni sëñ Babacar mas na dégg mu wax ni yar dañ koy tënk ci rabbinaas naas maliki naas ilahi naas ndax buñ ko fossee rek nee na dara dootul baax nee na rabbi nee na mooy bi bi nit ki juddoo ba ba muy am juróom-ñaari at maliki naas di bi nit ki amee juróom-ñaari at ba muy am fukki at ak ñeent ñu 14 ilahi naas di bi nit ki amee 14 ans ba bu muy am 21 ans 3 fois 7 ndax nee na ci diine l'islam à 21 ans nit ko war na mën a nekk imam war a mën a taxawee li nga xam ne ay bàyyam war nañ ko mën a taxawee mu nit 0 à ans boobu xale bi. waroo dóor pour wax nit ki niñ koy préparé ku wax ni bàyyil nañu ko fi. 0 set ans xale bi waroo dóor waroo saaga. waroo brutaliser. da nga ko war a kof kofee jëmbat ci moom sentiment cofeel am mhm. euh, sama baay ma wax ni foofu nag dangay dégg ni xale bi ku ko teree doon buur buur dal sa ko ku weddi laajal ñu nekk France amoon nattu seen doom bu ndaw ñuy dem boutique ba donte mi ngi nelaw ñu tëj ko fa dem jëndi mhm. ci épicerie bu ko seen voisin yi yégee ba woote police sa doom jooju da nga koy ñàkk ci tëj xale bi rek ma ngay nelaw nga dem épicerie jëndi. donte dara jotu donte dara jotu. est te loolu ba ba muy am 14 ans nag. Mhm. kon mu ni deuxième phase bi. Mhm. di bi nga xam ni te dama ci indi walla rëq-rëq yi nekk Sénégal. Mhm. ndax 0,7 ans boobu mu xale bi buur la mais fii 0,7 ans da gis kuy dóor xale. est-ce que. te sax waxuma sax 0,7 ans te ba mu juddoo sax moom xale bi ci li xew léegi da ngay dem tudd. ñu ni indi xale bi ñu indi ñu ni nañu njoof ci bopp bi tuuti ñu njoof ci bopp bi tudd ko xale bi droit am la ñu war ko wat droit la ci moom xaq la léegi ne xale ba nga nga xañ ko xaqam ca booba continuer di ko di ko xañ ay xaqam xux yooyu nga ah, nga nga nga nga ko xëy suba xale bi tekki nga naan jox ma sama droit ndax dina sotti kon 7 ba 14 mu ni foofu nag. ci ngay bëgg mën a def nag ci xale bi li nga bëgg a def ci moom fa ngay julliloo fa nga koy xamale jikko fa nga koy xeñtu loolu baax waroo ànd ak ñii waroo def nii fa nga ko war a jàngaloo de 7 a 14 ans foofu yaru xale bi war nga ko li nga bëggoon def ci moom da war nga ko mën def ci jikko ak ci xam-xam mu ni foofu nag xale bi Malik kooku xam nga buur la yaa yaay doon buur xale bi mun foofu nag xale bi soo ko bëggee def buur yaa koy def baa doolu ëllëg mhm. dem ba 14 ans donc xale bi foofu mu ne commencé na nekk waxambaane gis nga fii ba tey xale 14 ans quinze 16 yenu ndeyam wala bàyyam dor ci suuf ba xew na Ndakaaru ndax phase yële lañu ñu dañ ko dañoo renversé mhm. mu ni bu xasee ba am 14 ans foofu le phase conseil la xale bi da nga xam ne sa nawle la dee ko woo di ko conseiller di ko wax defel nii defel ne yow jàng nga ko nangam si nangam si <laughs> est-ce que. 14 ans nag ba 21 naa ci conseil nee na 21 ans xale bi war na niru nirulu la mu war doon ëllëg waaye nag qu'est-ce que ça passe au Sénégal 0,7 ans ñu ngi dóor. 7 <laughs> ans jot ñun xale ba ma commencé të ko kafe. ba xale bi am quatre quatorze ans nga gis ni mu ngi rëcc say loxo ngeen du fi amee da koy song pour dóoranteeg moom waxambaane la te xëy na mu mel ngay nekk waajur bu xaw a mel na man amoo kàttan daf lay yenn dóor ci suuf xëy nag 21 ans mu nekk leneen sunu genes tey coow am na. li ci mbedd mi. da gis loo xam ne yow bëggoo leen njaboote te dañuy wax ni kilifa goo bëgg a xam. nu mel da xool ci njabootam ndax xale yi ci mbedd mi suñu suñuy kilifa noonu lañ mel dañuy tuumal suñuy kilifa kon kenn ku ci ne kenn ku ci ne la nga nàmp rek ngay génne kon njàngalim sëñ Babacar ci loolu dafa dellu ci waat ci ñu préparer ndaw ñi waajal leen ca lu jiitu nag wax ma sax buñ juddoo mais lu jiitu ñu juddu jërëjëf oustaz Mohamed jërëjëf oustaz xam naa waxtu wi moom day gaaw ba dalay bett ñu gën a ràmbal tuuti mais dina ñëw ci lu am solo lu mu wax léegi ci euh, zéro à sept ans te mooy birab mu wax ne foofu xale buur la fi nekk vraiment tënk na fi yi ñuy waxte ci wàllu droit des enfants may fàttaliku defe naa xaw mu Serigne Babacar a wax kan bu ñuy woy di wax naan boo nawee maamu jàmbur te fekk sa maama raw maamam mhm. ndax yi ñuy wax ni lii mu wax ni feeñal na ni ci yarinam ak yarinu mag ñi teel nañoo bàyyee xel àqi xale yi mhm. loolu vraiment lu may noté a teg ci baaraam ñu jàll ci beneen laaj euh, yéen a ma dugal ci yenn citation maa ngi tiim fii benn citation boo xam ne Serigne Babacar Sy moo ma ko wax moo ko wax nee ñu dafa wax ni ku la ne xaar ma ne ko jot ma nee na ndax ku xaar ñëpp tardé yow daal ne ko badaari bataari badaari dab ma rek loolu tey tey ban enseignement lañ ci mën a jëlee mu nekk viatique ci xale yi lu leen di jëriñ lu leen di gunge xam nga arab day wax ne waaw himmatu la ahad baaxul doo ko def duma ko def moo tax foofu loolu sëriñ Babacar Sy wax radiallahu taala anhu warda wa anna bihi amin li muy tegtale mooy ne kenn ku nekk danga nga war a jël sa responsabilité ci dimension bi nga ko war a jële ak fi nga ko mën a jële ak ni nga ko war a jële mhm. mais bu fekkee ne da nga am responsabilité boo war a jël te yaa ko war a jël mhm. te contexte be laaj ko nga war koo jël te jëluloo ko rek loolu boobaa kila gàllankoor yow mhm. ki gàllankoor ba jëloo ko dina am responsabilité waaye yow mi tam yooy njax baax tamit tam ni ba fexee ba tam nag jëloo sa responsabilité kooku tam beneen beneen responsabilité maanaam beneen beneen mbir la kon li may wax foofu maanaam li ma dégg ci ci waxinam boobu ci mhm. situation boobu mhm. mooy ne daal yitt bu jotee mhm. danga ci war a dox jëm ca nee na dox jëm ca jarul ngay xaar bu fekkee ne am nga diglu nag jëfe ko oustaz loo ci doon dolli waaw li ma dafa am benn lu ma jàngoon ci téere boobu ñuy wax euh, taayatu suluk. Mhm. taayatu suluk waaw. dama jàpp ndax ni ma ko jàppee ci ndax noonu la am dé waaye day wax ni iza kunta muminan mhm. wa sami'ta annahu subhanahu wa ta'ala yamdaxul muminin fala tubadir ila kawnika muminan mhm. wa ta'ammal qabla dhalik euh, hal anta ala ma wasafa bihi llahu almuminin min as-sifat am la waaw mu ni Mm-hmm. bu fekkente ni yow. xas nga mm-hmm. bu nekk jullit bul doyloo ni jullit la mm-hmm. déedéet waaye pose-toi question de savoir est-ce que li yàlla taggee jullit yi ci ay melo. ndax yaa ngi ci walla nekkoo ci. su fekkee yaa ngi ci pose-toi la question de savoir est-ce que tu vas mourir avec ces qualités hmm. est-ce que di nga ci dee di nga de wàll yooyu. Hmm. wala doo deewaaleeg moom. kon lii dafay ci li nga wax rek nit ki da nga war a xam lan moo sa masuliya da nga ko war a xam. rek te nag ci niveau bu mën a doon nag xam nga su fekkee kër ga responsabilité bi borom war kër gi war a jël ci biir kër jëlu ko. keneen jëlu ko keneen jëlu ko buñ génnee ci société bi ci mbedd mi luy xew anarchie. dëgg kon dafay dem ba law ba au sommet de leta xam nga boo demee ci njàng njàngale tubaab yi loolu ñuy wax gestion des ressources humaines. xam nga dafa dem ba léegi wàllu wàllu wàllu décision wala boog wàllu information dootul nekk une information descendante mais ascendante. dootul jóge ci kaw di wàcc mais day yéeg. day maanaam kilifa gi day jéem a natt ci suuf lu fa ne lan la xam ko doo ko mën a xool nu muy saytoo. maanaam kilifa gi ci biir këram benn gañoo fi nekk maa koy takk yaa koy takk est-ce que dafa dafa ni loolu autorité nga a imposer déedéet. jëlal avis kenn ku ne ci kër gi tabul xeeb kenn na si mhm. alxaaj Abdou Aziz daan def mhm. ku ne dana laaj sa xalaat mhm. ba gis ni kat xalaat bi moo dëppoog li kër gi laaj mu def ko xam nga am na fa suñu Babacar di wax ni xalli sabila an ahbaabi munsarifan fa in lam tasir fatrukan ma saara lil bii ni mooy lii dab ma ji demuloo te kenn du dem mu ni déedéet yow koy ruggikul ci ni mel est-ce que jërëjëf ruggikul ci nga mel. yow soo demul ñun dañoo bëgg a dem. jërëjëf oustaz maanaam maanaam bu ñu doon enseignement bi mën nañ ko gën jegeel ñu wax ni nit ki. Mhm. da ngay fexe di nga ànd ak ñëpp mais dangay am sa autonomie. autonomie bopp nekk acteur. jërëjëf dépendre ci sa bopp. mais sa mbir doo ko aj ba mu jeex ci ci ñeneen ñi. jërëjëf jërëjëf oustaz dama musa dégg ci benn waxtaan. Mhm. Cheikh Sidi Mouhamed Moustapha si mhm. mu wax ne dafa am ku critiquer yenn ci. ñiy tuddee seen bopp mutasawifiin am critique bu leen ñenn ñi defal mu wax ni liñ leen critique mooy taxrikul abdaan ma a tasfihil uqul maanaam yaram yi rek lañuy saytu topp forme yi ci biti mais li war a remplir xol bi ak xel mi du fa nekk kon mu mel ni loolu ishaara la day junju wàllu solo bi nga xam ne ndaw dina ko soxla pour saytu xam-xam ndax mun ngeen ñu jox ci jàngale sëñ Babacar ak ay ñaaxaateem yu jëm ci ndaw ñi di leen xirtal ci ñu sàkku xam-xam si Lamine xam nga mhm. nee naa la sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu dafa jàngale ci comportement mhm. jàngale ci jikko jàngale ci ruux léegi nag ñaari cadre moo am lu ñuy tuddee éducation formelle ak éducation non formelle njàng bi ci mujj te mooy indi problème yi mooy tabax ñaari ñeenti mur dugal ci tableau jàngal nit ñi boobee ci mujj waaye ñoom seen jàngale boole woon nañ ñëpp parce que am na ñuy daara di jàngal nit ñi jàngal nit ñi alquran aalim yi fi rawoon ci réew mi ñu jàngal leen yemuñ ci loolu ñu jàngal ñi jàngul te loolu c'est très important mooy teg li ñuy tuddee ay université populaire ba boo newul Basin Mamara wala nga ne Abajada sax waa yow dinañ la xamal ba nga xam fooy teg sa tànk loolu Serigne Babacar Sy réussiroon ci jamonoom li ma ci indi tegtal ci dimension spirituelle wax ay baat mm-hmm. foofu lay gën a insister yoo xamee ni boo ko xasee ba dundu yow da ngay daal di nekk nit xuma nga jàng mën a liir da ngay nekk nit lu parce que bari na ku jàng mën a liir mën a def lépp te nekkul nit suñuy problème loolu la mooy li benn tubaab di wax ne ñi ba ay bacheliers yoo xamee ni c'est des ignorants ay bacheliers ignorants c'est des diplômés yoo xamee ni sax xamuñu fu ñuy teg seen tànk loolu nag Serigne Babacar si da ko xeexoon moom à sa manière waaye nag mu jàngale ci université populaire boo xamee ni ku nekk di nga dégg nekk nit ci lay ñëw wolof laa waxal ni nit kii nee na nit nit nitu wolof kese kese kese kese mooy li ñuy tuddee l'homme ordinaire kese xàmmee wërsëg ak barke xam nga man ngeen baal ma bu ñu ne jàng rek ñu dellu ci acad suñu nation académique mm-hmm. bu ñuy cité ñi jàng ak ñi wax ci éducation bu ñuy jàng lu ñuy def sociologie sociologie de l'éducation ñu bëgg ko delloo ci ñoom buur jàngee ci aju kese. Mm-hmm. ak dërkaayam man damay gis ni ñun am na ñu mel noonu. raw leen ëpp leen. tey mën a jariñoo seen i wax tey day jege nit ñi. est-ce que. moo tax mun a wax ne wolof. xàmmeewul xàmmeewul wërsëg ak barke. mu waxaat ne wolof xàmmeewul njàng ak xam-xam. mooy li ñuy wax. nit ki war na xam jàng ak xam-xam day change day soppi comportement ci la mu ci lañuy am xam-xam mais bu fekkee ne amoo changement de comportement rek apprentissage bi dafa des ci la waxaat ne wolof xàmmewul aj gu ñu nangu ak dem màkk aj màkk xàmmewu ko ak dem màkk loolu dalay lay tegtal ci wàllu ruux ne booy waaj di dem màkk war nga am yitte ni damay dem pour aji màkk waaye dew ma pour dem màkk dellusi bu ñëwee ñu ne alaaji bi demoon na màkk aj màkk ak dem màkk daan distingue nit ñi seen wàllu ruux pour ñu mhm. distingue ko mun wax na ni wolof xamul miiras ak séddale jërëjëf mu waxaan ne wolof xamul rendi ak rey dëgg mu waxaan wolof xamul ki njaxlaf ak ki ëppal jërëjëf oustaz Lamine xam naa mu dugg na fu fu yaatu. Uh-huh. mais dama koy dog pour mosal. Mohamedul Xaabis mën naa ko tënk foofu. très bien loolu am na solo mais uh-huh. takk naa ci lu am solo lu mu wax. Uh-huh. mooy euh, euh, li mu wax ni. ki sampa daara rek dèjà woo na ne woo na ñëpp ci njàng. ki sampa daara ak façon daara bi mu sampoon mu tudde ko université populaire. wax na aussi euh, seen njàngale. dafa doonoon loo xam ne day ànd ak jubanti. jur changement de comportement loolu am na solo oustaz euh, bu dee am na loo dolli ci loolu te nga jàllale ci ñaareelu question bi maanaam li mu jàngal ndaw yi ci wàllu liggéey taxawaayu liggéey ndax tam fii doom aadama daf fi ñëw nekk xalifa yàlla ci kaw suuf liñ fi war a defar noo ko ko war a taxawel walla woowu yi mu ci jàngale ak looy dolli ci li mu wax ndax temps bi mu ngi signalé. xam nga liñ ci xaw a dolli rek. waaw Mm-hmm. mooy gis nga naa wax yi yëpp nag. Mm-hmm. dafa am foo xam ni. Mm-hmm. dafay wax ñu dundal cofeel. cofeel waaw. xam nga mbir eh, genn góor day wax ni nit lu mu xamul du ko bëgg. te lu mu bëggul du ko wuti. du ko wuti. te loo wutiwul nag ah xanaa yàlla ñëw ak ah, rek waaye am ko dina la jafe xam nga suy wax ni muazzabul qalbi min laz'i sababati bal naarul bi'aadi ala al ahshaayi takwini kooku mm-hmm. ma ngay wax ak cheikh dégg nga de mm-hmm. ca suuf mu naan kam isa bahrun wa kam jibal baraari ko mm-hmm. ngir cofeel waaw lillahi kam xuribat arbaabu tazyini cofeel lay wax foofu ndax nee na man sëriñ Babacar dem naa ba mu mel ni sama xol bi dañ koy lakk ngir sopp gu ma sopp si Ahmad Yaan Chérif Eh, tàngooru cofeel boobu dafa dem ba mu jël samay baljat dafa mel na dañ ci teg safara mu may lakk di wax nag ni bari na ku xiis ku ku xuus ay géej mhm. bari na ku dagg àll boo xam ni àll bu dangereux la ngir rek mën a am cofeel xam nga tey su gàmmu Tiwaawan jotee walla tey sunu xalifa bi tey ak wax xam ni ko nit ñi soxla fu ko mas nit ñi masaan dégg da nga gis koo xam dina jóge fa sori sol lu rafet sonn lool te amaana de boo demee fa mu dëkk ci château la lan moo ko waral te bu demee foofu ci suuf lay tëdd yére yi froñu bu dee pajero la yoon wala huit huit wala yi xew léegi dangay gis ne oto bi day pënd te pourtant bi mu jógee dakaar dañ ko lavé lépp mu sol lu rafet waaye su àggee foofu soo demee doo ko xàmmee mhm. mu taq rib amaana sax muy yenu ca lekkee yi joxe lu ko waral cofeel cofeel kon yii yëpp ma ñuy jàngal ni mhm. dundalaale ko ak cofeel soo bëggee dem mhm. Mhm. ndax fu cofeel newul pour dara dund fa dana jafe te ni jamono ji ñu dund cofeel dafa xaw a manqué tuuti dëgg la foofu vraiment oustaz dama lay dog mais ma ma ma ma taxaw bu baax a baax mhm. ci foofu nga duggu xam naa duñ ci sax mun àgg ma malheureusement mais ñu doy lool loolu nga ci kii ndax defe naa ci plateau yi weesu am na mbokk yu fi doon waxtaanee benn thème boo xam ne mooy alxubbu sirrul xayaa maanaam cofeel mooy secret dund bi lu nit di dem fu muy dem cofeel moo koy gunge moo koy jox kàttan bu mu fay demee donc loolu lu am am solo la mais ci wàllu liggéey bi ci wàllu liggéey bi waaw mhm. xam nga sababu leen te bu leen sukkandiku yëngu yee mhm. xam nga loolu déjà dafa dafa nekk ci wax boo xam ni dafa doy lépp wallaay mhm. toog di xaar koy xaar te ngaa jóg jéem a ak moom sama bàyyi nettali na ma. Mm-hmm. xaw ma gouverneur lañ ko tuddee xaw ma ci jamono boobu nekkoon Thiès. Mm-hmm. convoqué sëñ Babacar radiyallahu taala anhu. ko mm-hmm. euh, ñu ngi ko convoqué 16h 4 maanaam 4h 5h xam nga dañuy julli. sëñ Babacar 4h mooy fekk na ko fa sama papa nee na lu doon war sëñ Babacar mooy moom soo ko joxee rendez-vous 15 minutes avant dana taxaw di xaar solo na ba taxaw di xaar. su 4 heures jotee te gisu la dana xaar ba 4 heures et comme seen nag dina leen ndax ah xaj la mi ndax gisoo ko fi su 4 heures et quart jotee mu daal di fatu kon kon moom dana préparer 15 minutes avant quinze minutes après. nee na bi ko kilifa ga autorité administrative bi convoqué mu ñëw 4 heures moins bi mu ñëwee mu recevoir ko lan ni ko dama bëgg nga wax ma ñett yi nga gën a bëgg ndax gouvernement français d'outre-mer nee nañu médaille médaille bi ñu amoon décoré nañ la ko ba amatuñu nga wax li nga gën a bëgg rek ñu defaree la ci sëñ Babacar radiyallahu taala anhu ni ko waaw bokk na ci li ma gën a bëgg de nga gaawal tuuti li ngay def ndax sama farataa ngi waaj jot te kilifa nga te waroo waroo yox ak man ma dagg ma dagg wax ji ngir di def leneen mun ko ñaareel bi kilifa àdduna nga kilifa diine la te njaboot gi fi nekk sama njaboot la ma bëgg lu mën a xew booy jëflanteeg njaboot gi fii nay doon loo xam ne su ma ko déggee sama xol man cee sedd ñetteel ba dangay ngay jub ma jub njaboot nga mën a jub. est-ce sëñ Babacar ñibbi na. Mhm. Eh, ba laata talaata ba dellu ñu yónnee ko oto ak un million wala nangam ca jamono boobu mu jël oto baag lépp delloo message ñëwaat na di lu tax mu delloo ko mu ni ko barke El Hadj Malick barke malik ak tool yi maam balaa mu jeex sama aju na faju mun ko oto bi nag mun ko oto bi dama demul fenn moo tax soxlawu ma ko kon nga gis ni kon moom lépp ma ngi ko wékk ci barke alaaj maag liggéey bi muy def kon nekkul woon ku doon toog di xaar taalibe yi pour ñëw mm-hmm. comme li xew suñu jamono di appâté nit ñi mm-hmm. euh, li sama baay di wax dafa am sëriñu mbëtt for gunóor ak gunóor for mbëtt luy loolu gis nga gunóor ni mu tuutee mm-hmm. te lu mu yor mu mun ko séddoo mbëtt xool mbëtt ni mu hmm. waaye mbëtt moom lu mu yor lekk te lu gunóor yor mu bëgg lekk. kon ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ni. Hmm. yàlla da leen baaxee li mu leen baaxee waaye ñu jël jaam yi xam nga li Cheikh Ahmad Tidiane Chérif wax rek. maa hmm. euh, sama xati nufus bi bas nafis. mbokku taalibe yi suñu ñëwee jël ci seen teeyu bakkan jël jox la. loolu moo lew ci yow waaye yow dërëm bi nga am. donte ay millions lañ yor jëlal sa dërëm dugal ci seen biiri million nga bokk ak ñoom ñoom nag luñ ci jël jox la nga dem. macha allah jazakumullah oustaz xam naa indi na yu am solo. Mm-hmm. dugg na ci wàllu liggéey bi mu tënk ko ci baatu sabablu leen mu wax ko wax bu gàtt xam nga si Lamine dafa wax sànq ni bi lisaani xaw mi. Mm-hmm. maanaam da doon wax wolof bu jege. Mm-hmm. yi ñu fi wax yépp ci ay waxam ci wolof. mënoon nañ ko cité ci ay ay waxi arab parce que ci baatu sabab lu leen wax na man kaana za xirfatin fal yuxyiha abadan ba ak na mu ko mottalee waaye loolu du mooy solo si solo si mooy ay waxam ñu génne ci njëriñ yoo xam ne mën na nekk lu ñuy gunge kon mbokk yi ñu ngi jege fi waxtu wi di jeexe dañuy jox si Lamine mu wax kàddoom yu mujj ak yan lay dénkaa nekk euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan xam nga da wax ay ñaari laaj yoo laaj Mouhamadul Haafaz <coughs> bu njëkk bi nga wax ko ne ko euh, ci wàllu liggéey Serigne Babacar Sy dafa wax ci benn xasida tarku tasabbu bi xul min suu'i ma adabin sababu li leen tëbu leen sukkandikoo yëngu loolu da doon exhorter nit ñi pour ñu dem liggéey mhm. doy na beneen li gën a étayer loolu gën koo firndeel mooy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane ci gàmm yi rek. Mhm. wax na projet yu mu am moom Serigne Babacar Sy dem di commerce yi. Mhm. di tàggu Cheikh El Hadj mu koy ñaanal di ko dimbali pour mun dem dem liggéey loolu tam exhortation la ci ne. moom lu mu nekk kilifa kilifa diine daan na liggéey daan na liggéeylu daan na tam soññ di exhorter njaboot yi ci pour ñu liggéey. Mhm. danga wax tam benn wax bu doy waar bu nu def critique bu nu def ci mutasawifoon yi. waaye loolu. Mhm. Euh, euh, ñi bëgg wax ñooy wax mais dama ni. Mhm. ci contexte sociologie bu ñu nekk au Sénégal. Mhm. mu tasawifoon yi ak seeni njaboot. ñoo fi liggéey luy tax liy yokk. luy valeur ajoutée bu tax réew mi mën a jëm kanam. ak mu tasawifoon ak tarixa bu ñu mën a bokk nag. ñoo tax seeni njaboot ñoo fi liggéey valeur ajoutée. Mhm. bu tax réew mi mën a développé. Mhm. rawate nag ñi nekk jóge ci daara yi. nga xamee ne sax jànguñu sax ci école nasaraan yi. Mhm. kon loolu wax bu yàqu la. bu ñu bëgg te li mu wax ci mu tasawifoon waxumu ñu liggéey mais dañu développé cosa cofeel xam nga Cheikh Al Hadj si li mu wax. ci développé cofeel parce que nee na cofeel ki am cofeel mu tasawifoon ñoo rey ñoo yar seeni njaboot. ba rus na ñoo rey nit mm-hmm. terrorisme bi ngay dégg nii doo ci dégg moto mu tasawuf abadan doo ci dégg ku nit yàlla yar abadan mm-hmm. loo leen mën a tooñ loo wuuteeg ñoom diine diine dana la bàyyi ak sa diine nekk ci seen diine parce que am na cofeel moo tax nga dégg sëriñ Babacar si wax mm-hmm. ñoom ñoom dañuy développé cofeel sa ba ci biir bàmmeel mhm. xam nga cheikh Serigne Cheikh li mu wax ne daawtu imaami wa huwa fi qabri saamitun mhm. daawtu imaami wa huwa fil qabri saamitun nee na woonaa Serigne Babacar te ma nga ne cell ci ci biir bàmmeel mhm. te nee na nag bu ma bu ko neexoon sax mu wuyu ma wa ma sumtuhu illa mabadin wa arkan kon donc ñoom taxrikul abdaan yitteelu leen parce que ñoom ñooy defar abdaan yi defar xulub yi bu ko defee bi ci mujj nag mooy gën développé cofeel mooy sëriñ Cheikh Alxaaj sëriñ Babacar li mu wax Cheikh Alxaaji Malik mm-hmm. wa qalbiya fi lalaaqati qad kafaani ana wallahi xaqan fii kafaani loolu mooy wane ne kon ñoom cofeel la ñu bi mu wax nag ci nag jël sa responsabilité dama dégg sëñ Pape Malick mu ne sëriñ Babacar si ak Cheikh Alxaaji Malik mm-hmm. dañuy déloger sëriñ Cheikh Alxaaji Malik ci Saint-Louis mm-hmm. ni ko da ngay génn kër gi pour wan ni jël sa responsabilité ak jël nangu yan. Mhm. ñu ne nañ yanu bagage yi ñu ne nanu yan bi nanu yan mu ne Serigne euh, Serigne Pape Malick mooy mu ne ñu yan Serigne Babacar ñu ne nañ ko yan yan bu ndaw mu ne kenn yan lu ndaw. est mhm. yan mu mag rek lay jël. dal di jël ci yan yu gën a mag daal di yanu pour ñu génn kër gi. loolu mooy wane ne kon Serigne Babacar si. daawul jël lu tuuti lu mag rek lay jël. ngeen baal na ak ñu nuyu ñëpp. nu jéggalu parce que ñun dañu judd après Serigne Babacar waaye nag lam yashuru fi ghiyaabihi ah lam yashuru bi ghiyaabihi fi qabrihi uh-huh. hal hal ghaaba man sakana alquluuba xalila abadan la abadan jazakumullah ñu sant leen ñëpp gërëm nag sunu responsable moral Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy bi nga xamee ne liggéey bi kat yàlla ak moom a tax ngeen baal naax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jazakumullah Euh, balaa may jox euh, euh, Mouhamed Hafiz mu tàggatoog mbokk yi donte signalé nañu ne waxtu wi ak agsi na dafa dugg fu am solo leeral loolu ñu waxoon ni critique la bu ñennat ñi jëme woon ci mutasawifiin yi wax na critiqué na ko maanaam critiqué na critique bi mu wax ne teguwul fi mu war a tegu dafa fekk dafa am ñoo xam ne bu ñu la bëggee jàmm ñu seet fu ñu teg seen tànk ñu ngi koy gërëm ci loolu am na solo oustaz sa kalimaat yu mujj incha allah waaw xanaa sof ci rek la sëñ mhm. Babacar waxoon ni borom caq day moytu borom baatu neen mhm. eh, foofu rek la waaw parce que li tubaab di wax dafa am esprit critique ak esprit de critique mhm. waaw ko loolu rek fi ne dëgg la waaw wax nag boo xottee ko rek moo fi ne waaw du tee rek nag lii lii avancé moom dana avancé waaw te itamit nag ba fekkoonte ni dara newu fi fekkoon dara newu fi accam rek ngay dégg waaye bu coow li bare c'est parce que daraa fa ne waaw kon loolu mooy li nga xam ne xëy ñu dañ ko ci def dañ ko mm-hmm. sof xanaa gërëm leen sant leen. dëgg la jërëjëf eh, eh, sëñ Moustapha di ko ñaanal yàlla. ndax wax dëgg yàlla alaamaatul mursidil kaamil. Mm-hmm. soo koy nafarte ko xool wallahi doo ko ci génne. tabarakallah waxuñu ko nag mm-hmm. ndax dañoo nekk njaboot. ndax ñun ay intellectuel lañu. kenn saxaluñu suukar. waaye daal ku ay mbiram war a yaatu la. macha allah ku ay mbiram war a yaatu la. Euh, xëy na xamuñu ci lu bari waaye xam nañ lu muy faral di taxawee ci yu baree baree bari ñaanal sunu kilifa gii fi nekkit nag yàlla na ko yàlla dolli wér sama baay dafa def ci moom benn seede bi sa papa Omar mu yénni fa ay millions yu bari ñu ne sa papa na ko recevoir te def te mooy waxtaan sa papa ni leen man de li may wax ci sañ Cheikh rek mooy kilifa la goo xam ni bari na xam-xam am na alal waaye kum gis nga am xam-xam day bëgg nga dollee ko kum gis nga am alal day bëgg nga dollee ko. macha allah kon sang piir la kon ñun ay sang lañu la ñu amal affaire. kon yal na yàlla sàmm leen sàmm télé bi. yal na yàlla jëme lépp ci kanam. ci jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axir dawaana alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullah mbokk yi ñu doon suivre fii ci plateau spécial bi aju woon ci Serigne Babacar ak njàngaleem bi nga xam ne mën na gunge ndaw ñi yéen a ko déggandoo noonu ci suñu ñaari mbokk yi Mouhamadul Hafiz Fare Mandeyjoor Mouhamadul Amin ma Càmmoñ ñëw nañu ci anam bu am solo waxtu wi daf noo dab waaye xam naa ni sax li ñu waajaloon jotuñu ñu ngi leen di ndokkeel ci barke Serigne Babacar boobu yàlla na yàlla defal nu jàmmu biir ak jàmmu biti defal ko sunu réew def ko ci continent bi def ko ci àdduna bi lépp loo xam ne waaye am na ko ci yéene bu sell ci barkeem yàlla na ko yàlla mottali lépp loo xam ne sofaan la bu jëm si ci ñun ak feneen yàlla na ko yàlla fanq ci barkeem kon yàlla na ñu fekke ay déwén yu bari yàlla may nu kàttanu nuy waxtaane ay mbiram te di ko jëfee te di ci jube asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xalifa woy naa la keñ naa la ñaan naa la nga may ma ndax faj aaja gi la borom min fii di max yoo ne gërëm naa la aha se ki yoo ne gërëm xalifa sa bay ay gërëm na lay borom nit ki